عين المعارف الأقوم صراطك التام الأفقم الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم مولانا أبي العباس أحمد التجاني سقانا الله من فيضه بأعظم الأواني مبكي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالد خالد mbokk yi ñi ngi woon ci ñi ngi taxaw woon ci li ñu leen waxoon ne wahaabi yoone yi bokk na ci seeni jikko ci seeni melo lépp lu seen sëriñ wax te loola dëppawul ak seen pas-pas duñ ko weddi waaye dañ koy nëbb loolu joxe woon naa ci exemple tey jii dama ciy joxewaat beneen exemple moo waral sax kàddu yi ma yëkkati waaye loolee ñuy nëbbal seen sëriñ ba mu jar sax ñuy ixtisaar téere ba ngir mooñ ko wóoy ko ba génnee lañ doon nëbb génnee ko ci téere bi nga xam ne dootu fa nekkati ndax téere bu ñu ixtisaar rek bu ñu ko wóoyee am na ay xaqaayiq yuñ génnee ndax téere bi bu ñu bu ñu bàyyi bu ñu ko bàyyi woon mu ne ñum la fa nekk lépp dafay nekk waaye buñ ko tëggaatee nag toggaat ko ah mën naa am ay xaqaayiq nekk ca yoo xam ne doo ko ca fekkaat ay mbir nekk ca yoo xam ne doo ko doo du fa du fa du wéy di fa nekk gannaaw ba ñu ko dabb daaxewaat ba noppi léegi loolu yi ñuy tudde tahdib ak loolu ñuy tudde ixtifaar ak loolu ñuy tudde taysir loolu mooy mooy rek li nga baat baatu wolof bi nga xamoon ñu koy wax dabb daaxee waaw dabb daaxee fexe ba loo bëgg mu nëbb nëbb loo bëgg mu feeñ feeñ loo bëgg mu deñ deñ loo bëgg mu def fa def loolu nag dama ciy ñëwaat ci beneen anam tey xam nga boo demee ci taqdisul ashxaas fil fikri suufi ahmad loo ma nga fay tuumaal ab lim ci suufiya yi bokk na ca ibnu arabi alxaatimi bokk na ca eh, afifuddin atalamsaani bokk na ca a cheikh ahmad attijaani ak ñeneen bokk na ca a cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu ñoo ñëpp daf leen a tuumaal ci ne ay ay xuluuli yoon ne ñoom dañoo gëm xulul gëm littihaad littihaad mooy yàlla ci boppam subhanahu wa taala bennoog mbindeefam yi nga xam ne mbindeef mi yàlla la yàlla la yàlla tamit yàlla la nga xam ne benn la nga xam ne benn la nga xam ne même mii di wax yow yàlla nga nga xam ne e, loolu mooy littihaad bennoo xulul mooy yàlla wàcc ci ab jaamam wàcc goo xam ne day jaxasoog moom jaxasoo goo xam ne day doon moom moom mu doon moom yàlla doon ko moom mu doon yàlla loolu nag la wax ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu euh, euh, gëmoon na loolu daal di indi ay nusuusam yu bari daal di koy dëngal nam ko bëggee pour pour mën a wax ne Cheikh Ahmed Tidiane ab xulul la waaw xulul Euh, wal ittihaad waaw ah. euh, naka noonu ñeneen ña ca def ñëpp waaye ci biir loolu euh, ci bi muy wax ci safahaat yi mu ne cheikhul islam ibnu taymiya sax am na fu mu leen layyile waaye du ñëpp am na ñenn ñum ci layyil loolu ci lay ñëw la lam leen layale nag loolu indiwu ko loolu nag man danaa ci indi benn naf loo xam ne ibnu taymiya moo ko bind layyil ci suufiya yi nga xam ne tàbbi nañ ci ay shatahaat léegi su fekkee nafs boobu bii may indi mooy bi ahmad loo doon nëbb fa ni'ma hiya bu fekkee nafs bii may indi bokkul ak ba ahmad loo di nëbb ma xam ne kon ba ahmad loo di nëbb day doole ko ci biir rek lay yi gën a bari waaye li mu doon tuumaal Cheikh Ahmad Tidiane yi ci xulul ak litihaad loolu laay indi loolu laay weddi ba noppi su ma weddee loolu ba noppi door a indi lee man lu ma wax dama ciy duut baaraam waaw lu ma wax rek dama ciy duut baaraam lu ma wax mukk di mais lu ma wax rek dama ciy duut baaraam xanaa kay gaa yi gis ka di ko falsifié wala nan noo waxewu ko noonu di di taawi la fu ne lu nañu dugg ci waaye wax ji moom day leer ci kàttanu yàlla incha allah li may weddee ni nag mi ngi tuumaal Cheikh Ahmed Tidiane euh, alxulul bu ñu demee ci jawahirul maani sayidna cheikh bi ñu ko laaje xadiisu ana inda zanni abdi bii bi yàlla di wax ne maa ngi sama sama jàmba njortoo sayidna cheikh bi muy charx wax jooju lii la wax déglu li muy wax dafa wax ne fal indiyatu iqtadat alxulula maahu fi lmakaan li anna alabda fi makanin mustakin wa dalika mustahilun ala allahi taala id yastahilu alayhi alxulul fi lamkinati walxuruji minha dégg nga waaw Seydina Cheikh dafa wax ne li ñu tudd al indiya ci boppam maanaa mi mu am mooy dafa laaj ki nga ki nga nekk fa moom nga bokk ak moom benn barab bu nga nekk mu ne ndax jaam bi dafa nekk dafa am barab bu mu nekk mu ne nag wa dalika mustahilun ala llahi mu ne te loolu ci yàlla ñu naan yàlla mook masamba ña nga ker ga di leen keral mu ne wa dalika mustahilun ala allahi loolu lu jomb la ci yàlla ndax ba tey cheikh wax de id yastaxilu alayhi alxuluulu fi l amkinati walxuruj anha mu ne jomm na ci yàlla ñu naan yàlla wàcc na barab sàngam ci barab yi wala jóge na fa léegi waaw na fa jógewaat na fa wàcc na feneen déedéet mu ne loolu lu jomb la ci yàlla ak lii Seydina Cheikh wax ni mu leere ak li muy leer leer leer leer waa ji kenn xamul ñaata yoon la dellu ci jawahirul maani di fa jële ay wax di dugal ci téeréem bi di lem loofiyeeka euh, di di di di tawil ak di wëlbati maqasid yi li ma ko def kenn xamul nu mu toll waaye lii ma lay wax nii moom nga xam ne Seydina Cheikh daf ci dàq xulul ci àq sunu borom subhanahu wa loolu sëñ bi waa ji bind ko ci téeréem bi benn yoon da ko faa déeg xam ngeen déeg comme ni ñuy déegab jaañ noonu la ko déegi wër wëral ko dem yoonam waaye Cheikh Tidiane yi waxul loolu dong parce que xaaral ma dolliwaat la bi muy bi muy firi gannaaw ba mu waxee ne wa maana al indiyati hahuna isaafuhu lil abdi bi talabihi fi ma danna bihi mu ne loolu la yàlla jublu ci indiya bi ana inda danni abdi bi mais charhu hadis bi taxu ñoo jóg mais nan continuer sayidna cheikh bi muy charhu wa ana maahu ida dakarani wala aaya ba wa huwa maa wa huwa maakum aynama kuntum bi mu koy charha Euh, dafa wax ne fa hiya maiyatu zaat fa huwa maa kulli cheyin bi zaatihi wa tilka laa taqbalu imtisalan yaani lintisalu an tilka almartaba fa huwa fi tilka almartaba maa kulli cheyin laa bi xuluulin wala ittifaalin wala intifaalin wala masaafa wala qurb wala bu'd iz tilka sifatuhu zaatiya dégg si nga wax boobu bi muy firi ay huwa maakum aynama kuntum mu ne maaya googu maayatu zaat la mu ne sunu borom subhanahu wa taala maa kulli shay'in bi zaatihi mi ngi ànd ak lépp ci ci jëmmam mu ne waaye ànd googee bokk ak ànd gi nga xam Moussa ak Demba ña nga ànd ña nga ne dee seen ñaari mbagg yaa nga lengoo ña dem mu ne du ànd googu parce que loolu àndug mbindeef la àndug mbindeef mooy ànd goo xam ne dañuy jege mbaa ñu sore dañuy takkaloo mbaa ñu teqalikoo waaw loolu ànduk ànduk ànduk mbindeef la mu ne ànduk sunu boroom ak lépp lu mën a doon nag ànd la gu kenn mënul a takkiif mu ne comme ni nga xamee ni zaatam ba kenn mënu koo takkiif comme zaatam kenn mënu koo takkiif zaat boobu lu muy àndal loolu kenn mënu koo takkiif kon maaya la goo xam ne laayiqatun bi zaatihi subhanahu wa taala du bokk ak maaya gi ngay xalaat yow moo tax moom moom firéewu ko maakum bi ilmihi ndax maa yakunu min najwa salaasatin ña ñett illa huwa raabiuhum illa huwa raabiuhum kon zaat la ñaari zaat fu ñu dajee ñetti zaat fu ñu dajee sunu borom zaatam ñeenteel la waaye waxuñu ilmoom ñeenteel ñaari zaat yooya dégg nga waaye ba tey masala moomu taxu ñoo jóg dafa dafa am lu feeñ ca sharx ba loolu la ñuy wëri loola la ñuy wëri Seydil Haaji Malik mi ngi wax ci ifhamul munkiril yi ne ndegam sujud bi garab yi di sujud walillahi yasjudu man fi samawati wal ard garab yeeg gunóor yi ak melentaan yi ak e, asiya yi ahjaar yeeg jibaal yi ndegam sujud gi ñu sujudal suñu borom lan mënula xam mënuñu ko takk yiif te ñooñu ay mbindeef lañ mu ne kon naka la ñuy mën a takyife maayatullahi subhanahu wa taala bi zaatihi jamia xalqihi yàlla ànd gi moo ànd ak mbindeefam yi ci zaatam kon loolu naka lañ koy mën a takyife kon bul takyif waaw ñi am problème wala ñi ko mënul dégg ñëpp li leen indil problème mooy dañoo bëgg a takyif maaya googu ne par force ñoom ak ànd daal nii lay mel moo tax sayidna cheikh dàq loolu mu ne fa huwa fii tilkal martaba eh, mu ne sunu borom maaya googu laa amewul ci xulul maanaam moom mu ñëw dugg ci jaam bi jaxasoo moom wala tisaalin du ak jokkoo du ànduk jokkoo wala tisaalin du ànd teqali ko naan kee nga nekk ca defe nga ne wala masaafatin du àndu distance wala xurbin te du ànduk jege wala boodin te du ànduk sori te du ànduk sore kon loolu noo ko mën a loolu ak ànd nan la mën a mucc ci yi ñu ne waaw liñ ko mënul a takyif moo tax liñ ko mënul a takyif loolu soxla woon foofu mooy li mu wax ne laa bi xululin mu ne ànd ànd gu sunu gi sunu boroom di ànd ak e, mbindeefam yi bi muy ànd ak mbindeef bu nekk du ànd ko xulul ànd goo xam ne mbindeef mooma day ñëw dugg ci moom wala moom mu ñëw dugg ci mbindeef mooma xoolal ak loolu Seydina Cheikh di wax loolu yëpp muy leer naññi terewul waa ji nee na Cheikh Ahmad Tidiane ab xulul yi la ba noppi teg na képp koo xam ne nag gëm nga xulul wala nga gëm littihaad génn nga ci lislaam ndéem yaa ngi ci woon ba noppi taxaw daan ne wax leen ma fan laa takfiire kenn may naa leen seeni sët fii ba xaw ma ñaata at nangam nangam ma ne loolu koy jaru ko jarul maye fii féeki at moom kay nangu la toog ci plateau rek nga jàkkaarloo keneen ku gëmul li ngay wax mu wan la ko rek ndax caaxaan baaxul ndax mënoon nit ki dafa gëm xulul waaw ah, xaaral ba nag dégg nit ki dafa gëm xulul dafa gëm littihaat ba noppi daan ne xulul ak littihaat koo gëm ab yéefér nga ba noppi daan ne nag man waxuma diw yéefér la loolu sa mën koo dégg mënoo ne bàyyi démb mii moom dafa gëm xolool ak littihaat bàyyi démb nga tudd aw turam dafa gëm xulul ak littihaat daa dina xulul ak littihaat nag képp koo gëm ab yéefér nga képp koo gëmit génn nga ci lislaam ndéem yaa ngi woon ci lislaam waaye bàyyi démb mii moom da koo gëmoon ma noppi daana bàyyi démb man takfiru ma ko bi cool li baree nga ne bàyyi démb léegi takfiru ma ko yooyu dëgg-dëgg ak wayadi la goo xam ni <laughs> ak wayadi la goo xam ne ku ñuy wooye ab docteur waaw ku ñuy wooye ab docteur waroon naa rusoo wayadi ba egg ci dayoo boobu waaye lii naa Cheikh wax ci dàq xulul te xulul moom foo ko dàq dàq nga littihaad li muy dàq xulul yépp terewul wax jooju mu ngi ci jawaahirul maani jàpp naa ne waa ji war naa mën a gis wax ji ndax lu bari ci ay masaayil jëlee na ko ci jawahirul maani dugal ci biir téeréem bi kon war naa mën a gis lii waaye ak loolu yëpp téerewul nee na Seydina Cheikh moom yi nga xam ne moo wax ne àndug yàlla ak mbindeefam yi du amee ci xulul moom ne nee na Seydina Seydina Cheikh xulul la gëm dégg ngeen bu baax dégg ngeen bu baax waaye yemul foofu def na def na ba tey Seydina Cheikh mi ngi wax ci eh, boo demee ci téere bu ñuy wax duruul wiqaaya bi ahzabil himaaya eh, sunu mbokk al ustaaz Mahamdinil Ghali Gay rahmatullahi alayhi moo ma joxoon téere boobu am na fa benn xisb bu fa nekk Seydina Cheikh di fa defum ñaan déglul ñaan gi Seydina Cheikh doon def ni mu ciy dàqe xulul di ci dàq littihaad déglul ñaan gi xaw tuut mu doon ay wolof xaw tuut rek mu doon ay wolof ndax leer xaw tuut mu doon ay ay tukkulóor ci yow mi tukkulóor xaw tuut mu doon séeréer ci yow mi séeréer ndax leer gi mu leer Seydina Cheikh dafa tàllal loxoom ñaan wax ne ilaahi fasadat uqulun fa nafatka min al wujud wa dallat axlaamun fa xasaratka fi kulli mawjud wa anxarafat fitarun faddaat bi annaka aynu lwujud taqaddasta ilaahi min xasri maxluqaatik min xasri maxluqaatik wa tanazahta ilahi an mumazajati masnuatik subhanak kayfa yaxuumu xawla ximaaka aladam wa anta alxaqu almubin audu bika min kulli wahmin xululi yaxtarifu alilhaad wa xayaali alwujudi yactaqidu alittihaad wa daycatin dahri yabtagi fi l ardi alfasaad boo ubbee page 61 ci duruucu alwiqaayati bi ahzaabi alximaaya dana ci fekk lii may wax nii Seydina Cheikh Ahmad Tidiane moo ko wax loolu ci tënk mooy lan dafa wax ne ah ilahi fasadat uqulun fanafatka min al wujud yow sama boroom xam na ay xel yoo xam ne day yàqu nañ ba yegg ci wax ni amoo dàq la ci am ne ne loolu yi ñuy wax yàlla amul wa dallat axlaamun fa xasaratka fi kulli mawjud am na ay xel yoo xam ne day sànku nañ ba yegg ci di la tënk ci bépp mbindéef waaw di wax ne mbindeef mi yàlla la yàlla ji mbindeef la am na ay xel yu sànk ba egg foofu cheikh ay wax cheikh miñ ne moom mooy moom li muy dàq nii moom mooy liñ koy tuumaal moom li muy dàq ñii ci àq borom bi subhaanahu taala loolu la ko Ahmad loo di tuumaal ak taalibe bi dégg mu ne wan xarafat fitarun faddaat bi annaka aynul wujud mu ne am na ay fitra yoo xam ne wàcc nañ wàcc nañ seen yoon ba yegg ci di woote ne bi ci boppam mooy yàlla te yow taqaddasta ilahi min xasri maxluqatik yow sama boroom yow day set nga wecc ci tënkuk sa mbindeef yi ñu di la tënk fenn yow ëpp nga loolu ëpp nga sa mbindeef yi di la tënk ci dara wa tanazzahta ilahi an mumazajati maxluqatik masnuatik mu ne ko yow sunu borom yow sell nga ba ëpp ba ëpp di jaxasoo yii yii nga xam ne yaa leen defar waaw sell nga ba ëpp loolu di jaxasoog say mbindeef jaxasoog ñoom mumaasaja te mubaaja mumaasaja boobu waa ji indi na ko ci taqdisul ashxaas te nee na Seydina Cheikh ci ci ñu gëm loolu la bokk Seydina Cheikh mii di dàq loolu di wax ne yàlla ëpp na loolu kon nga xam ne gaañi in yaalamul xayra yuxfuuhu wa in alimu charran azaau wa in lam yaalamu kadabu kon nga xam ne ñoom ay gaay lañ yoo xam ne buñ buñ la xamalee lu baax nëbb ko buñ la xamalee safaan siiwal ko buñ la xamalul safaan sosal la kooku nu nit di mucc di mucc ci moom mu ne subhanaka kayfa yahuumu xawla ximaaka al adam wa anta alxaqu almubin mu ne ko subhanaka maa ngi bakk sa tedd maa ngi bakk sa tedd nga di wax na yow li ñuy tuddee al al adam nan la la mën a laalee fenn ak ñàkk comme ñi nga xam ne dañuy wax ne amul te te yow yaay alxaqul mubin kon nag audu bika min kulli wahmin xululi yaxtarifu l mu ne maa ngi ñaan yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci bépp def def lekk ku gëm xulul koo xam ne dafa jàdd yoonu njub wa xayaalin wujudi yaatiqidu littihaad maa ngi lay ñaan nga musal ma ci bépp janeer janeer wujudi boo xam ne dafa gëm ittihaad bennoo wa dayaatin dahri yabtagi fi l ard ak cànkuteg dahri dahri yuuna yi xam am na ay dahri yuun ñi nga xam ne ñoo gëm ne wa maa yuhlikuna illa dahr waaw fi l ard la Seydina Cheikh Ahmad Tidiane yi wax waaye ak lii muy wax yépp di muslu sax ci koo xam ne ab xulul yi nga koo xam ne da ngaa gëm xulul moom da ciy muslu ne ne yàlla audu bika min kulli wahmin xululi yaxtarifu l ilhaad moom day muslu sax ci koo xam ne dafa gëm littihaad mu ne wa xayaalin wujudi yactaqidu littihaad audu bika min xayaalin wujudi yactaqidu littihaad ak lii yëpp nag moom mu ko waxee ba pare léegi nag dafa gëm xulul dafa gëm littihaad gaa yi koy wax fa la waxa fii boobu man li ma amal solo rek mooy indi naa ay mbir yu leer nañ yoo xam ne ci waxi Seydina Cheikh Ahmad Tidiane la bokk doonte la boo demee ci taqdisul ashxaas fil fikri suufi am na ay mbir yu mu fa coxat caxat caxatee ko waaye yooyu maa ngi bàyyi ba waxaabi yu laal ko buñ ko laalee nag ma indi wax jana mu demee yëpp yooya la nag pour mën a wooye Seydina Cheikh ab ittihaad yi ak xulul yi léegi nag ittihaad googi ak xulul googi ña nga xam ne dañuy wax ay sataxaat yoo xam ne day dugg foofu nee na am na ci ñoo xam ne ibnu taymiya layyil na leen layil na leen wan mu ne waaye du ñëpp waaye indiwul lay wi de ibnu taymiya lim leen layile ana nafs ba bu indiwul nafs bi te ñoo bàyyi man ma indi nafs bi ma am man nag naf bi ma am ibnu taymiya di ci layil eh, suufu yi ci seen safahaat yi bi ma ci am man xaw mooy bi ahmad am di ko wala déet su fekkee bi am la am maa ngi nii di weer bi ma am fii su fekkee moom bi ma am bokkul ak am kon ba mu tëyee bosam man maa ngi génnee bi ma am ibnu taymiya dafay wax ci wàllu fanaaw xam ngeen fanaaw de fanaaw dama ko mas a laaj sunu ustaas Cheikh Tidiane Gaye radiyallahu anhu dama ko mas a laaj fanaa u mooy lan mu ne bu ma la koy misaal daal xam nga booba booba euh, Sénégal mi ngi toll ci équipe nationale bi mi ngi toll ci digg ndëndam ñoom El Hadj Diouf ak gars yi yooyu nekkoon mu ne dafa mel ni rek ki nga xam ne dafay suivre football muy seetaan Sénégal laa juf yor bal bi mu di ko xool di ko xool ba mujj nee na bu jubee kaa yi kaa yi yow miy seetaan yow fàtte nga lépp dafa mel na yow yow yor bal bi dangay ngay door ba mel ne yow nga biddo fekk yow yow sawaay yaa ngi fii nekkoo sax fañu footballé mu ne fàtte googu nga fàtte li la wër nekk ci si li ngay li ngay li ngay xool li ngay janool nga nekk ci loolu ba mujj mel ne yow loolu yowa ba mu dóor jotee nga dóor mu ne loolu mooy fanaaw mu ne noonu la awliyaaw yi di defee amee fanaaw ci àqu seen boroom dem ba wax loo xam ne day mel ne ñooma waaye bu fanaaw wi jeexee rek ñu xam ne du ñoom def naa ne li mu wax nii lu leer la moom nit la ko xam ne lu mu leeral mu leer ibnu taymiya gi di leeral fanaaw mu ne wa fi hada al fanaa qad yaqul ana al xaq aw subhaani aw ma fi l jubbati illa allah kañ ida faniya bi mashhudihi an shuhudihi wa bi mawjudihi an wujudihi wa bi madkurihi an dikrihi wa bi maarufihi an irfanihi kama yaxkuuna anna rajulan kaana mustaghriqan fi mahabbati axar fa waqaa almahbubu fi lyammi fa alqa al axaru nafsahu xalfahu fa qaala ma alladi awqaaka xalfi fa qaal xibtu bika anni fa danantu annaka anni ibnu taymiya wax de nee na nee na am na ci e, suuf yooyu ñoo xam ne danañ yegg ci fanaa u foo xam ne danañ dem bay wax ne anal xaqu anal xaqu mooy man maay yàlla yàlla muy dëgg man maay yàlla aw subhaani nee na am na ci ñoo xam ne danañ dem ba yegg ci fanaa u foo xam ne dañuy wax subhaani ibnu taymiya ay wax ne lii may nettali nii su ko alaaji malik waxoon alxaaji malik si bu waxoon lii lu lu lu lu waxaabi yone di wax dañ naan kii kii mushrik la kii kaafir la lii bu Cheikh Ahmad Bamba bu doon Cheikh Ahmad Bamba moo wax lii moo wax wax jii may wax nii lu waxaabi yone di wax dañ naan kii kat ab mushrik la lii bu ko Cheikh Abdul Qadir al waxoon dañ naan lii ab mushrik la dañ naan kii ab mushrik la képp koo xam ne am nga lu tuuti ci lintisaab ci tasawuf soo waxee wax ji wala nga di ko layil yow ab mushrik nga mais bu ko ibnu taymiya waxee loolu dañ koy nëbb moom laay feeñal nii moom laay feeñal nii bu ngeen gisee may may wax di liir di liir baatu arab yi xam nga mënoon na maa wax rek noonu ne wax na nàngam te dana leer mais liir baatu arab yi ba ñu xam ne bu ñu demee ca téere dañuy fekk la ma wax ne fang fangaara ñu mën koo daj làmb daj ko gis ko xam ko ñi nga xam ne du am du am benn laam-laame ñu ñoo xam ne benn baat sax du ma ko jël ci li may liir mu ne am na ci ñuy wax subhaana nii waaye mu ne am na ci ñoo xam danañ yegg ci fanaaw foo xam ne dañuy wax maa fil jubbati illa allah sol sa manto wala sab jàllaabi wax ne jàllaabi bi yàllaa nekk ci biir ah na de waaw waaw waaw waaw xaaral ba ma <laughs> sol nii yàllaa nekk ci biir xoolal mu wax ne loolu kañ lay am mu ne ida faniya bi mashhudihi an shuhudihi su demee ba di am fanaa ci li muy li muy janool ba fàtte ak teewaayam moom wa bi wujudihi wa bi mawjudihi an wujudihi bu demee ba def fanaa ci li ko amal yàlla ji ko amal wëlif moom nga xam ne moom moom yëgatul ak nekkam wa bi madkurihi an dikrihi wa bi maarufihi an irfanihi mu misaal ka ci nag Euh, benn waay boo xam ne dafa am mbokkam mu mu sopp lool dem ba jeex takk ci cofeel gi nee na mbokkam mi sóobu ci lëggum ndox mi nee na mu soobu topp nee na mu ne ko yow lu la dugal ci lu la dugal ci ndox mi mu ne damaa fàddu ci yow Ibnu Taymiya wax de na mu ne mbokkam mi damaa laa sopp ba fàddu ci yow ma defe ne yow ay man moo tax bi nga duggee ci ndox mi ma dugg ci ndox mi léegi ñooñu lan moo war a doon seen at ñooñu di wax subhaani ak di wax ana alxaq ak di wax maa fil jubbati illa allah ñooñu lan moo leen teree nekk ay mushrikuun borom shafahaat yooyu wala bokk ñi ñi ko wahaabi yoone di tudde ay kufriyaat mais ibnu taymiya wax ne wa yuxkamu ala haulaai anna ahadahum ida zaala aqlahu bi sababin gayri muharram fala junaha alayhim fi ma yasdulu anhum min al aqwali wal afaali al muharrama bi xilaafi ma ida kaana sababu zawali al aqli wal galabati amran muharraman nee na ñooñu nu ñu leen di àttee mooy kenn ku ci nekk la dindi sam xel bu dee du xaraam nee na loola lu ñu leen kenn du leen ko topp waaw kenn du leen ko topp benn bàkkaar du leen war mais mu ne waaye nag bu doon nag dañoo dañoo dañoo la dindi seen xel lu xaraam la comme lu mel ni sàngara nee na bu boobaa la ñuy wax dañ leen koy jàpp mu ne waaye nag comme ñoom li dindi seenum xel mooy teewlu seen boroom ba fàtte seen bopp bañ fàttee seen bopp tàggoog seenum xel di wax loo xam ne yàlla rek ko war a wax subhaani di wax loo xam ne yàlla rek ko war a wax ana alxaq di wax loo xam ne kenn xamul waxi lan la di wax ma fil jubbati illa allah naanuñu sàngara ba teeg tàqalikoog seen xel waaye teewlu seen borom moo leen yóbbe loolu mu ne kon wa yuxkamu ala haulaai anna ahadahum ida zaala aqluhu bi sababin gayri muharram fala junaha alayhi mu ne kenn ci ñoom bu fekkee ne li dindi am xelam du lu xaraam bu boobaa fala junaha alayhim fi ma yasduru anhum min al aqwali wal afaali al muharrama mu ne bu boobaa wax yooyu nga xam ne wax yu xaraam la yu di ko wax nee na loolu dara waru leen ci dara a ca benn bàkkaar nekku ca ndax li leen li leen tàggaleeg seenum xel ba ñuy wax lii loola du lu xaraam ibnu taymiya teg ca ne wa hada kama qulna fi uqalaai almajanin walmuwallahin alladina saara lahum maqaman daiman kama annahu yucradu li haulaai fi bacdi alawqat kama qala bacdu alulama dalika fi man zaala caqluhu xatta taraka shay'an min alwajibat wa ida kaana zawaluhu bi sababin gayri muharram misl al igma bil marad aw usqiya mukrahan eh, eh, shay'an yuzilu aqlahu fala isma alayhi mooy li mu waxoon léegi rek waaye ba tey ma ngay wax ne wa kadalika qad yaqau alfanaau bi xaali xawfin aw rajain kama yaxsulu bi xaali xubbin fa yagibu alqalbu an shuhudi bacdi alxaqaiq wa yasduru minhu qawlun aw camalun min jinsi umuuri eh, umuri sukara wa hiya safahaatu eh, baad almashayiq ka qawli baadihim ansibu xaymati ala jahannam wa naxwi dalika min al aqwali min al aqwali wal acmaali almuxaalifati lilsharc wa qad yakunu saahibuha gayru masuum dégg ngeen wa qad yakunu saahibuha gayru masuum nee na kii wax yooyu mën na caa bañ a jële benn bàkkaar loolu yëpp mooy li mu waxoon léegi rek waaw mooy li waxoon léegi rek bu fekkee ni daal la jàpp ba mu wax ne ansib xaymati ala jahannam wala la ko jàpp ba wax ni eh, ma fil jubbati illa allah wala la jàpp ba mu wax ne subhaani wala la jàpp ba mu wax ne ana alxaq su dee ni la la dindi xelam ba mu wax loolu du lu xaraam nee na bu boobaa benn bàkkaar du leen ca war léegi nag bu fekkee ni e, ci napp bii la ibnu taymiya di layal di layal ñoom xallaaj ñoom ibnu arabi ak ñu mel ne ñoom bu fekkee ci napp bii la sukkoon leen di layale te ahmad loo di ko nëbb ci taqdisul ashxaas fil fikir suufi kon napp baa ngi nii feeñal naa ko su fekkee ne nag beneen nas la la leen di layale kon ma xam ne Ibnu Taymiya layalu leen benn yoon kese layal na leen fii layal na leen ca beneen ba Ahmad Lo di nëbbu te amaguñ ko waaw léegi nag ba muy nëbbu ndax bii la wala du bii moom moo koy mën a xam waaye ñun ba muy nëbbu ndax bii la wala du bii moom moo koy mën a xam kon nag ñu ngi taxawee foofu ba beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu